Euh, may ma tout rek ma revenir sur le budget épuisé. waaw mi ngi nii bu fekkee pare nga rek boo daanelee ma lire ko. incha allah mhm. budget épuisé. Mhm. budget de dañoo jàngoon suñu élèves yu CM1 yeeg CM2 yi. que mhm. prévision la. une prévision du jeex. dëgg la. le budget de l'État du Sénégal c'est pas de l'argent bu fi nekk wala. dëgg la budget yi ci ñett yi lay jógee. recette douanière mm-hmm. ak partenaire public privé mm-hmm. mm-hmm. chaque trois mois impôt et domaine day ne andi naa lii da andi lii dem naa lebi nàngam suñu demee ba mënuñoo fay mënuñoo fay bourse yi te bourse yi nag dañuy wax askanu Sénégal duudu les bourses mm. des étudiants c'est la banque mondiale qui paie mm. c'est la banque mondiale Saliou am na lu mu la yónnee xool salut. saliw mm-hmm. donc par rapport à cette situation le ministre n'a qu'à dire la vérité à ses whatsapp c'est-à-dire s'ils ne sont pas incapables mm. parce que Abdourahman il m'avait beaucoup séduit mais bon and ak ni ba paré mais malheureusement Abdourahman fait partie de l'équipe des paresseux hmm fa la et eh, eh, eh, fa la joggé c'est vraiment dommage bal bal il fait partie de l'équipe des paresseux yow fii nga tàngal ndox ba mu tàng léegi sotti ko Abdourahmane bàyyil Amadou mu Adama mu mu mu ndoxal. Adama yow ndoxal duudu bu ko dégg. il fait partie de l'équipe des paresseux. loolu mm-hmm. yaa ko wax sa wax la. Mm-hmm. parce que la rivalité entre les deux paresseux moo tax kenn ki dem. Mm-hmm. tey le paresseux le rejoint l'autre paresseux. dans la dans le même parti ou bien dans la même coalition entre guillemets. dëgg la donc pour dire que bu ñu dox ak xelu askanu Sénégal. le le sénégalais Sénégal a besoin de comprendre pourquoi étudiants un retard de paiement mhm. pourquoi. est-ce que est-ce que tardewul ci banque pourquoi. Mhm. Ah, parce que aussi. gouverner c'est prévoir. Mhm. gouverner c'est mettre en confiance les partenaires publics privés. parce que s'ils avaient mis en confiance cette banque là mais dina fait bourse yi à temps Voilà. Mm-hmm. Mais ils ne l'ont pas mis en confiance. Voici les difficultés que nous avons traversées. Donc, pour dire que le Sénégal est là Parce que ces mimi-là, ils sont dans leur jeu favori. Jeu favori, moi, manipulation. Mm-hmm.

présentement génération bi mhm. génération bi dernière génération la regarde les commentaires sur, sur, YouTube et sur les autres. Mhm. Quel type de jeunesse nous avons Violent verbalement, mhm. agressif, indiscipliné, mal poli. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Fatou. va dans les réseaux sociaux xool ñan la ñuy seetaan. waaw. ñi nga xam ni indicateur la ils battent les records de vues. li ñuy seetaan duñ ca jëlee dara. amul ben lu instructif lo xamante dañ da di jënal seen jeunesse la amul. Hmm. mais ils préfèrent regarder les insulteurs. il préfère regarder ñi nga xam ne dañuy xaste mm. ak di wax wax yu ñaaw mm. parce que moom moo leen di dundal mm. quand un premier ministre taxaw grand théâtre taxaw Dakar Arena mm-hmm. il reconnaît que moom li mu doon def c'était de la théâtralisation c'est l'escrit c'est dangereux su ma fa nekkoon si instant bi laay génn ñibbi déggaluma la dama ne am na loo xamante ne ba mu ko waxee keroog Aïda Mbodj la waroon tekki ndom ba tànkam dem yoonam. Mhm. parce que il a dit que Aïda Mbodj li mu doon wax keroog du dëgg. Aïda Mbodj moo toog conférence de presse di jooy tuuti mu jooy. Hmm. par rapport à la. ci sëñ Muntaxa dem dem di jox leen ñu jox leen tàndarma. Hmm. ndeket ki nga koy defal. Hmm. day day jouer film. suñu wax moom moo ko wax. jeunesse bi tàccu. c'est-à-dire on a une jeunesse boo xam ne. kon daanaan nga. film bi daanaan film bi réussir rek moo tax ñu taal on a une jeunesse boo xam dañoo bëgg ku leen di fenn. Hmm. dañoo bëgg kuy xaste. quand un un homme public taxaw di wax gatsa gatsa nit ñi di tàccu te gatsa sa saaga la dañ ma baal ci kàddu gi. Hmm. ay jeunesse di tàccu. Hmm. quand une jeunesse toog nit taxaw ni diw day fenn jeunesse bi di kontaan ci loolu. cette violence verbale on doit se poser la question. On ne doit pas se poser la question par rapport à quel type d'homme politique nous avons. Mhm. Parce que la population pas dans sa globalité, mais une partie de cette jeunesse-là, mhm. beaucoup nous mhm. Maintenant, révolutionner la chose, retourner vers l'orthodoxie pour mieux qui C'est-à-dire, c'est vrai, ce fameux débat daf ñuy dugal dans le caniveau parce que ping pong aari ñaar nit la le débat politique doit être un débat intellectuel civilisé mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. soo demee toog ci plateau di débat bay ñax c'est parce que débat trop mm. tu fais autre da ngay xuloo da ngay xuloo teesante da ngay teesante cest da ngay gis ku toog ci di débattre débat soo toogee ci plateau débat contradictoire waroo ñàkk parce que idées yi moo war a xelli pas les forces du bras Mm-hmm. Mais, par rapport à l'opinion jeunesse, nous mm-hmm. ñoo vedette bi. Mm-hmm. parce que liñ lay wax que nous yow diw li wax Adama Fall. non la daf daf ko daf nangam. parce que on on on ñi ngi ñi ngi mesurer. la réussite du débat sur naka lañ la naka lañ la wa nitu positif waaw ba nga xam ni kii mënatu leen débattre. waaw tolloowu leen niveau. nga jóg. waaw ñu ne da ko dàqee dafa daw. dafa daw da ko door ba mu daw. daf ko door ba mu daw. ñu ko waxal yëpp dëgg la. voilà tax daw na donc pour te dire que. on a mm. cette jeunesse là nañ ma baal. Mm. on a une partie de cette jeunesse là. ñoo xam ne dañoo bëgg ku leen di nax mm-hmm. dañoo bëgg ku leen di tromper dëgg ba ba quand on les appelle des moutons ça me fait mm. mal. ça fait mal.

on a raté le coach parce que ñi ci jàng bariwul. Mhm. le Sénégal de photo dans cette jeunesse là. Mhm. aucune culture aucune formation les ñu bëgg mooy ils sont violents ils sont agressifs des dañu am ay modèles yoo a ni ci violence ak agressivité la ñu mhm. le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. le Sénégal mhm. n'a que les dirigeants qu'il mérite méritent. li ñu mhm. sur cette question là par rapport à le milieu les débats politiques mhm. c'est parce que c'est le peuple qui maintenant notre mission en tant qu'acteur et doyen et autres c'est de conscientiser mais sooy conscientiser da ngay conscientiser ku nangu ñu conscientiser ko. Mhm. ku nangoo dégg. ku nangoo dégg. Mhm. ki nga xam ni bëgg naa dégg lu baax. parce que réew moom moo fi nekk maintenant nag Fatou. Mhm. Sénégal est en danger. <laughs> Adama liir nga réponse bi wala liir a goo ko. liir réponse wala man ngay bàyyi ma liiral la ko. dama lay bàyyi nga liir ah. ah, réponse bi. ah dañoo bëgg mu liir réponse bi. donc bàyyi ma liiral la ko. waaw liir ko xam naa ci lenn. se naan daal rejet lañu fi gis ci li nga xamné ne réponse Ousmane Sonko bi mu tontu ko lire xam ne waa ji daw nee daw dal lañu lañ gën a gis kii moom nee na kii moom nee na li mu doon xaar ci mom moy mu je me réjouis de la réaction de Amadou Ba selon son choix le 28 ou le 29 point final waaye nag réponse bi déméwul noonu Amadou euh, euh, euh kii Ousmane lii la tontu euh, Doudou mu je me réjouis de l'acceptation annoncée par monsieur Amadou Ba du débat auquel je l'ai convié je suis étonné qu'il ait attendu des rumeurs d'interdiction du débat par le CNRA pour donner une réponse somme toute timorée Il est enrobé de conditionnalité et de dérobate comme à son habitude les éventuelles lacunes du code électoral ou de la loi sur le CNRA avec des dispositions obsolètes quand à <laughs> l'occasion des élections au Sénégal ne saurait constituer un obstacle dirimant à sa tenue nous avons posé aucune nous n'avons posé aucune condition à M. Amadouba qu'il en fasse de même chacun présentera son argument au peuple sénégalais le jour J et je puis vous <laughs> promettre que les de mauvaise gestion de l'ancien premier ministre seront aussi clairs que les rayures d'un zèbre tout est référencié tout est référencié sourcé et renseigné à partir de documents officiels irréfutables y compris des rapports qui l'ont